وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوت لكم ليحسنكم من باسكم فأنتم ساكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مشني الضر وأنت أرحم الراحمين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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفحنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينصلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bi gayri ilmin wala hudan wala kitaabin muniir saaniya atfihi li yudilla an sabili llah lahu fi dunya xizyun wa nudiquhu yawma alqiyaamati adaaba alxariiq dalika bima qaddamat yadaaka wa anna allaha laysa bi dallaamin lil abiid wa min annaasi man yacbudu llaha ala xarfin fa in asaabahu xayrun itmaanna bihi wa in asaabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi xasira dunya wal aaxira ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ wa kadalika anzalnahu ayatin bayinat wa anna allaha yahdi man yurid inna alladina amanu walladina haadu wassaabuna wannasara walmajuusa walladina ashraku inna allaha yafsilu baynahum yawma alqiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi lard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب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 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عتيق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما ذقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 inna allaha yudaafiu an alladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur udina lilladina yuqaatiluuna bi annahum zulimuun wa inna allaha ala nasrihim laqadiir alladina uxrijuu min diyaarihim bi gayri xaq illa an yaqulu rabbuna allah walawla rifaacu llahi nnaasa bacdahum min bacdin lahutimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajid yudkaru fiiha smu llahi kasiiran wala yanzuranna allahu man yanzuruhu inna allaha laqawiyyun aziiz alladina yumakkinnaahum fi l ardi aqaamu salaata wa aatawu zakaata wa amaru bilmaaruf wa nahaw an ilmunkar wa lillahi aqibatu lumuur wa yukadibu faqad kadaba qablahum qawmu nuuhin wa aadin wa thamud wa qawmu ibrahima wa ashaabu madyana wa kudiba muusa wa qawmu ibrahima wa qawmu luut wa ashaabu madyana wa kudiba muusa fa amlaytu lilkaafiriin thumma axadtuhum fa kayfa kaana nakiir wa kaayyin min qaryatin ahlaknaahaa wa hiya zaalimatun fa hiya xaawiyatun alaa uruushihaa وبير معددة وقصر مثير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون وكأي من قرية أملت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والغاشية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتقبل له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بأن أولئك عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله عليه ما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم تعملون فيما كنتم تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليكم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فوربكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو يجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل في هذا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 خالدون الذين يسون في الدرس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم علقنا النطفة علقة فعلقنا العلقة مدقة فعلقنا العلقة مدقة فعلقنا العلقة مدقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبعة الطرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نقيل وعناب من نقيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها إذا تأكلون وشجرة تعرج من طور سيناء تنبت بالدهن وذبق للاكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة من كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء لأنزل ملا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال ربي انصرني بما كذبون فأوحينا إليه فأوحينا إليه أن تسنى الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا ففرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ولا عليه القول منهم ولا تقاتلني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت غير منزلين إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنزأنا من بعدهم قرننا قرين فأنزلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من الله خيره أفلا تتقون قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعذابنا أنكم مغرقون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل يفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 قال عما قليل قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم قثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أنزلنا رسلا تترى كلما جاء أمرا رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أنزلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عامين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومهين يا أيها الذل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرة حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نثاره لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم وإنه إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنذرون قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكذون مستكبرين به ذامرات تهجرون أفلم يدبرون أفلم يدبرون القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولون أم لم يعرف أو الأولين أم لا يعرفون رسولهم فهم له منكرون am yaquluuna bihi jinna bal jaahum bilhaq wa akdaruhum lilhaq kaarihuun walaw ittabaha alhaq ahwaahum lafasadatis samaawaatu wal ard bal ataynaahum bidikrihim fahum an dikrihim mu'riduun am tasaluhum xarjan fa xaraaju rabbika xayr wa huwa xayru raasiqiin wa innaka latad'uuhum ila siraatin mustaqiim wa inna alladiina laa yu'minuuna bil aaxira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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وإذا منا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ذاتر الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون يقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسحرون قل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين إنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون اتبع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا آذاب بينهم ولا يتساءلون فأنتقل موازينه فأولئك هم المفلحون من كفر موازينه فأولئك الذين كسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفى وجوههم النار هم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخذه فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى آتاكم ذكري وكنتم منهم تدعكون إني جزيتموهم اليوم بما شبروا إنهم هم الفائزون قالوا كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وورثناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون والزانية لا والزانية والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والقائمة آه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرون العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله innahu la min alkaatibin walxaamisatu an qadiba allahu alayha in kaana min alsaadiqin walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu anna allah tawwabun hakim inna alladina jaau bilifki xusbatan minkum la taxsibuhu sarran lahu bal huwa xayrun lahu likulli imriin minhum likulli imriin minhum maktasaba min al ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahum adabun azim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم يستلقونه بآذنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 sabbih isma rabbika al-a'laa allazii xalaqa fa sawwaa wallazii qaddara fa hadaa wallazii axraja al-mar'aa faja'alahu ghushaa'an ahwaa sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa maa yaxfaa wa nuyasiruka lil-yusraa wa zakkir in-nafa'ati z-zikraa sayazakkaru man yaxshaa wa yatajannabuha al-ashqaa allazii yaslaa an-naara al-kubraa summa laa yamuutu fiihaa wa laa yaxyaa qad aflaha man tazakkaa wa dhakara isma rabbihi fasallee bal tu'thiruuna al-hayaata ad-dunyaa wal aaxiratu xayrun wa abqaa inna haadhaa lafi suhufi l-uulaa suhufi Ibraahiima wa Muusaa Allahu akbar Allahu akbar sami'a Allahu liman hamidah Rabbanaa wa lakal hamd Allahu akbar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 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun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 أعوذ بالله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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar